kon nga nit bu gisee sëriñam ni mu koy raamalee. sama sama kilifa laa gis daa war a wàcc def une minute de silence parce que sama kilifa la. une minute une minute de silence. <laughs> parce que noo mel moom moo ko def. ah waaw non non nu ñu mel ngay wax. <laughs> del wax nu. waaw nu ñu. keroog nee naa la live bi del wax nu. waaye man dama cee raw. parce que man léegi il est attirant. ah non avec toi et Wally qui est le plus attirant. avec toi. <laughs> Olis. Olis soob na. jeex na. Olis soob na Olis soob na Olis soob na Olis soob na. yaa ngi cool. ay Olis boo amee ay milliards fan laa jëm. est-ce que ma gën dëgg. mais yow yow ay milliards lu ne am na ko. makk rek nga am. xam nit moom bu gisee sëriñam day toog. Ah. dugg si loolu. Ah, da ngaa jébbalu. Ah, eh eh eh, eh maar wax nañ waxtaanee nañ ko. eh toogal. sama kilifa nga sama kilifa nga. <laughs> Gripo, Gripo, mon ami. yaa ngi cool de. yaa ngi cool. ay poli eh, boo amee ay milliards fan laa jëm. est-ce que ma gën dëgg yi. mais yow yow yow ay milliards lu ne am nga ko. Eh. makk rek nga am. <laughs> nit moom bu gisee sëriñam day toog. ah dugg si loolu. da ngaa jébalu. eh eh eh maar wax nañ waxtaanee nañ ko. eh toogal. sama kilifa nga de. sama kilifa nga de. Grip Grip mon ami. yaa ngi cool de. Ah,